dañ fi dajé pour siwal li nga xamante mom lañu nañu def ci gox bi donté campagne électorale i xamna xam sax taskatu xibaar yi ñu ci baré lolu motax ñu xawa am blocage parce que ku ne xam na ne dafay am ab dir bo xamné wa CNRA dañuy xawa contrôler li nga xamné mom la média yi di publier wayé téwul dinañu siwal les grandes lignes de notre programme bi nga xamantene ci campagne électorale bi yëpp dañu ko tass dañu ko won askan bi yëpp ci ñetti ponk rek li ñuy woowee diagnostic moy dañu xayma li xew ci dëkk bi bi ci dess moy lan moy suñu vision lan moy suñu gis-gis bi ci dess nak lan moy orientation yi ñu am mu nekk ñenti orientation a fukk juroom ben ay levier li ñu gis ci dëkk bi moy fi ci Rufisque west bi ñu bok dafa am difficulté yu problèmes, problème yu bare yoo xamante dafa am problème ci croissance madame, si yokkute dañ ci am problème bu rëy a ci Rufisque Ouest dañ koy yëg ci cadre de vie manam si dundunu askan wi ci fanne yu baré ci fanou, environnement ak cadre de vie manam ni ñu di dundee ci ci gox bi wayu dëkk bi et cetera problème moy ni dëkk bi di yaatoo lolu dañ koy wax jëmele ko ci cité yu bees yi cité yi nga xamantene moy mooy ZAC Mbao mooy Médina ZAC et cetera gox yooyu dafay màgg te mu am problème urbanisation yu rëy benen bi moy pêche nap gi nga xam Mo dal indi indil lu bare si dëkk bi te léegi mu soxé bu lu bare bare bare te ku melni Amadou Diop Thioune Mamadou Diop Thioune mi tok man si wax lu bare bare bi ci dess moy ndol gi ci dëkk bi nga xamantene dafa indi problème yu bare bare bare nit ñi amuñu liggéey nous avons des problèmes de revenus, nous revenu des problèmes pour les problème pour jeunes nous am problème pour les des problème pour anciens donc lolo, dañ ko si si Ouest partout Il ramener savoir que nañ fa ñu problèmes, ñu ay problème yoo fa Nous nañu jël des problèmes ko d'ailleurs, dina problèmes problème Ouest yu mu nekk problème yu rëy rëy rëy fii si Ouest mu seet mu signifier que ne camarade mbokk yi Rufisque Ouest feebar na Rufisque Ouest am na ay problème Rufisque Ouest foog ñu indi fi ay coppite Rufisque Ouest foog indi fi changement loolu nañu bëgg indi inchallah, le 23 janvier 2022 loolu motax ñu daal xeyma ben programme bo xamante dafa am quatre objectifs stratégiques à seize leviers d'action, ñu tënk ko ci lu gatt bi ci jëkk waxna ko sànq mooy environnement cadre de vie xam ngeen ne li ñu constaté fii surtout Rufisque Ouest euh, quartier Jokkul par exemple gis ngeen géej gi nu muy nu muy jagisee mi ngi détruire ay kër yu cadre de vie bi maanaam tilimaayu dëkk bi lu ñëpp a koy joytu problème euh, canaux yi maanaam canal yi nga xamante ne seen matériel de feu vétuste dafa màgget te canal système de canalisation il baaxul également bi ci des moy ñettel bi objectif stratégique moy li accès aux services sociaux de base ku ne xam na né bu féké da nga bëgg ab dëkk wala dëkk am avancement problème wu wër gu yaram problème mu éducation régler wo problème mu entrepreneuriat fay am problème yu baré, baré, baré. ba sax problème problème culture dans un sens orient environnement euh, euh, entrepreneurial parce que gis nañu talent yi ñu am fi ci dëkk bi lolu aussi foog ñu jël ko en charge enfin quatrième bi moy gouvernance locale engagement citoyen wax ko gouvernance bo xamné da fay basé si transparence bu féké da nga yoré alalu dëkk bi il faut que régulièrement ngay rendre compte ngay wan nit ñi fi nga xamantene fi nga duggal xaalis bi parce que dañ la voter le budget chaque année de le voter ay millions yu da fay normal aussi que nga won nit ñi fi nga ko dugal dafay normal aussi que yow lépp looy def nga xool intérêt général bañ a xool ne man ab maire laa sama ay militant rek laay toppatoo wala sama ay mbokk wala da ngay nekk maire boo xam ne waa Tëngéej gi yëpp ngay ngay ngay ngay gérer loolu mooy orientation stratégique yi nga xamante ne moom nañu liggéey xayma ko liggéey boobu nag suñu coalition dafa taxawal commission coalition bi ñi ngi ko tuddee coalition Bay Sa War Rufisque 2022